comme je vous l'ai euh, semaine dernière dimanche passé si laa commencé di leen di wax waxu sextape dinaa ci gën a xuus bu ci kanamee su ma pare ci maître chanteur yi euh, ñu bari commencé di prêcher le faux pour savoir dinañ ci ñëw bu ci kanamee léegi mais on commence par MC Niass MC Niass euh, ak audio mi gis ngeen ne audio yi premier audio bi ñu largué gars yi commencé woon nañ di ci wax et tout gars yi def leen ay kër parce que ñu ngi taxawal ñu ngi ñu ngi kii live bi quoi c'est pas normal. Euh, premier premier euh, premier euh, audio yi gis ngeen ne saa fait un peu de bruit gars yi commencé di ci waax ñu commencé di ci ndamoo ñun ba ñu génnee audio Babacar Touré Kewulo ngeen gis ne tout de suite après les choses ont changé après audio yi seen audio yi ça passait inaperçu les gens s'en foutaient pas mal audio yi mujj gi c'était en flop alors audio yi MC Niass ci boppam euh, dafa doon dugganteeg Mamour Diallo MC Niass bu duggee ci dossier bi nekkul pour affaire de ay leeral walla moom dafa bëgg dëgg moom jullit ak kan la euh, bëggul injustice c'est faux moom MC Niass ak gynécologue bi docteur Ousseynou gay xaalis moo leen dugal ci mbir mi gynécologue bi Sall Ousseynou Gaye moo gën a bon ñëpp ndax moom maître chanteur dëgg pire la te di ngeen ci xam dara MC Niass da nekk di woo saa su ne Mamour Diallo entre parenthèse pour Mamour Diallo pour waa Pastef waa Pastef yàgg nañoo wax ni Mamour Diallo ci complot bi la bokk parmi tant d'autres personnes man Mati Fall su fekkee ne man Ousmane Sonko dafa ñëw pour yàq sama vie yàq ma man boole ma ak àdduna ñëw tuumaal ma détournement ay ay milliards ma ñàkk sama post et tout mu def ma noonu tey ma gis xale bu ndaw di Adji Sarr sësul fenn yaakaarul kenn mu jóg pour affronter kii di Ousmane Sonko ma xam ne kii koobala te ku capable la ma xam ne kii. manipulation ak appareil politique bi nekk ci ginnaawam kii da euh, euh, euh, dina dina détruire cette petite là su ma ko seetaanee ah man en tant que man Mamour Diallo wala Mati Mati mun naa jàppale xale bu jigéen bi pour que mu mun a porter plainte pour que justice soit fait surtout en tant qu'être humain moom ji nit la en tant que jigéen en tant que xale dinaa ko war a mun a jàppale entre nit ak nit jullit ak moroomam Mamour Diallo am na droit jàppale Adji Sarr déggoo leen ma de en tant que jullit ak moromam am na droit jàppale Adji Sarr bu buggee def plainte bu buggee dem hôpital bu buggee lu mu bëggee mën na ko war na ko mën a jàppale. ndax man Mati wala man Mamour xam naa lu lu lu lu xale bu góor bii capable xam naa lu Ousmane Sonko capable. ñu dégg ci turu Mamour jàlloo rek ñu indi mbirum complot waaye ñi may waxal. mooy Sénégal gépp Sweet Beauté wax nañ ko waxaat ko maa mu Diallo takkul loxo yi Ousmane Sonko ne ko demal Sweet Beauté yeewuñu Ousmane Sonko ne ko par force dangay dem Sweet Beauté moo namm ay tànkam làqatu ay jabaram làqatu garde kooram làqatu ay nitam parce que ba mbir ma ñoom jomaay fay ñoom ñëpp ak seen dañ ne xamul Sweet Beauté mosta dem Sweet Beauté moom sax xamul aji Sarr moo doon làqatu di dem sud beauté kon nag boo fa defee la ne wey nga foofa xale bu jigéen ba bëgg ko ko jàppale Adji Sarr man mi di mati te xam li nga capable yow Ousmane ko su ma neexee jàppale Adji saar complot wu ma la sama noon nga ba nga ma jekkoowee danga ma ko def kon nag man dinaa jàppale également koo xamante ne ni balaa nga koy balaa nga koy yàq ma jàppale ko loolu fi nekk kenn complot wu la jël la ne la ciix yóbbu la biir sud beauté ne la par di nga ko sikk aji Sarr loolu leer na noonu MC Niass fexe ba dugganteeg aji Sarr gagné sa confiance en tant que sëriñam yor ay audio dem gisanteeg Mamour jàlloo pour mu jox ko xaalis ndax nee te bu bu ngeen ko soxlawee ñu génnee preuve moom MC Niass moo doon woo di ko karaj karajee Mamour Diallo di jaar ci ay nit pour que ma Mamour Diallo wax ak moom ñu jox ko xaalis pour mu di pour pour ñu mun a collaborer ci mbir mi MC Niass xaalis moo ko dugal ci dossier bi boo gisee ci audio yi audio yi sax jël nañ fii copier fii kole fii mais moom saa yu waxee lan ngay dégg ñu gagné ci milliard ay mbirum kër ay mbirum àdduna MC Niass bu ko jaree dinañu indiwaat ay preuve dinañu indi ay preuve pour li may wax nii ngeen gën indi ci ay firnde ngeen am ci ay firnde comme nag maamu ñal maamu jàll faalewu ko lijjantiwu ko mu wulbati ko daw ci ñoom Pastef jaay leen audio yi maamu euh, euh, euh, MC Niass c'est un maître chanteur c'est un profiteur c'est un opportuniste ci dossier bi juste taxu koo jógee taxu koo jóg ndax moom nee na moom xam na ni ba muy ba mu bëgg a jokkoo ak Mamour Diallo dafa ne moom xam na ne xale bu góor bi li ñu ko jiiñ moo ko def déggoo leen ma de MC ba mu bëgg a dugganteeg Mamour Diallo daf ko wax ni ko lii ñu koy jiiñ moom Ousmane Sonko moo ko def ñu ñëw ci gynécologue bi al Ousseynou Gaye gynécologue bi xaritu Mamour Diallo la ça fait presque vingt ans gars yi du gis ne ñu tëyee ñu tëyee live bi du gis ne ñu tëyee live bi mais amul benn problème nañ dóor mu daanu rek gynécologue bi ngeen déglu ma bu baax xaritu Mamou Diallo la du tey presque vingt ans ñaar fukki at ñoom ñaar ñi ngi nekk mu koy woowee grand du jaar sax ci turam grand la koy woowee kon tey moom Mamou Diallo bu fekkee ne kii di xali xali bi euh, Adji Sarr bëgg na def nañ ko lañ koy def mu bëgg ku ko jàppale dem hôpital ñi ngi woon nekk couvre fa couvre feu lañ nekkoon jamonoy Covid. mënul génn te moom médecin la mu Diallo dégg naa dafa njëkk woo beneen médecin balaa muy woo ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy docteur Gaye mu woo ko mu ko grand du problème moo jël otoom jëlul benn otoom moom docteur Gaye moo jël otoom dugg ci otoom dem jëli ji Adji yóbbu ko hôpital moom docteur Gaye moo jël otoom. dugg ci euh, euh, dugg ci otoom dem jëli Adji Sarr yóbbu ko hôpital xamante nag Mamour Diallo ça fait plus de vingt ans wala une vingtaine d'années te du ko woowee Mamour Diallo grand la koy woowee docteur gay moomu nag ngeen gis mu lëkkaloo ak waa Kéwoulo ñu génnee benn audio audio Mamour Diallo ak moom looloo ko indi c'est un maître chanteur mu enregistré conversation bi 48 heures après bañ ko bañ yóbboo xale bi c'est normal bi nga ko woo maa mu Diallo woo ko nekk nan la nan ngeen mujjee c'est tout à fait normal mu enregistré ko en ce boobu ngeen gis audio bi jàll. mu bëggoon ci moom it ñu jox ko ci xaalis mu jaar fu ne mënatul jot mu jaar fu ne ko jot tey ngeen gis ko il mu nekk ca boor bi ñu yëkkati na certificat médical def ko arme ñi wër Ousmane Sonko jamono ji ba ci ba ci activiste yi pseudo activiste Pastef parce que activiste waroo far fenn mun leen tuddee activiste ndax da ngeen far ba pare mais supposons activiste Ousmane Sonko yi ñi ko wër ñoom ñëpp trois quarts yi gëmuñu Ousmane Sonko ñu ci bëri sama live lañ doon ñëw di frenku laay les dimanche je les connais ñu ci bëri dañuy wut pèse ñu ci bëri defe nañ ne tey bu bu nekkee président Ousmane Sonko ñu mun ci profiter gëmuñu ko moo tax ma ne yéen ci seen biir yéen laa rakaay déglu leen mu bu baax ci seen biir benn exemple rek leen di jox am ngeen ci kenn kuy live ku siiw c'est un faux type double jeu lay joué mi ngi fii mi ngi fee te incha allah rabi bu jotee di ngeen découvrir ñëpp ñu leen rax. te di ngeen xam ne on vous a cerné Sonko on l'a cerné uti plan B Ousmane Sonko uti leen plan B waa Pastef mu mu jaay kooba taxaw taxaw Kër Massar naan amuñu plan B man maay plan A maay plan B moom daal moom moom mooy candidat wu Pastef dina la yar ñu ñëw ci vidéo yi. vidéo yi sànq rek am na benn extrait bu ñu ma yónnee ci kenn ci ñoom la rakaay dafa wax rek ma xam ne ndekete yéen vous n'êtes au courant de rien en fait. vidéo yi xamuñ ndax vidéo yi vidéo aji Sarr la yi ñuy tudd nii xamuñ ndax ay yeneen sextape la xamu leen en fait et vous prêchez le faux pour savoir fii ngeen nekkoon naan procès du am procès du am procès ñu ngi dem procès fii ngeen nekkoon dinañ taal dëkk bi TikTok baa ngi wàcc fu nekk nii réseaux sociaux yi gars yi dañ koo nangu ci yéen xale yi maire suñu moroomu yaay yi ñëpp ñëpp génn ci TikTok bi mu gi nag sax ñuy ridiculiser Ousmane Sonko gars yi ñëpp a ko ñeme ñëpp a ko ñeme di ko tutoyer xale yi sax ñi ngi si Ousmane Sonko mbir mu mel ni tulek male les porteurs de voix commencé génn ne Sénégal jàmmoo lañ ci xam demal procès ndànk Sénégal kenn du ko taal ku mel ni Siteu maximum de cœur pour Siteu ngeen ne dangeen koy saax-saaxe comme na woon fa woon gars yi woon leen ne kenn du leen bàyyi noonu ngeen di sax-saxi Siteu gaa yi jóg Siteu ba tey benn yoon la wax waxatul ñëpp jóg di défendre Siteu Siteu ba tey gédul tontu tontuwu leen sénégalais yi ko tontu yéen bu ngeen muusee si ngeen di xam ne la woon wonni na vous avez perdu les réseaux sociaux vidéo yi ci boppam commencé naa di gis may leen ma ma ma woon leen Euh, nee nañu may leen ma tuuti rek ma won leen ay affaire du deep fake may leen ma tuuti rek ma ma ma won leen euh, may leen ma tuuti je je may leen ma tuuti rek parce que loolu il faut ma génnee ko c'est extrêmement important parce que da ngeen nekk di préparer nit ñi pour que bu vidéo génnee naka ngeen di naka ngeen di défendre Ousmane Sonko du fi amee may leen ma tuuti rek ma won leen ko. deepfake bi li ngeen di wone du fii lay jàllee incha allah rabbi may leen ma tuuti rek deepfake ah ils l'ont enlevé parce que ont ils ont compris leur leur bêtise ils ont compris leur bêtise ils l'ont enlevé gis nga yéen ñëpp am na benn photo bi nga xamante ne photo Ousmane Sonko bi ñu wone euh, euh, vidéo mu nekk di wax s'il le faut dinañ ko rechercher ñu ñu posté ko wala lan mooy vrai deepfake deepfake euh, boo ko xoolee di nga gis par exemple Ousmane Sonko euh, euh, cette cette vidéo là Ousmane Sonko mi ngi mi ngi wax gémmiñ gi di di di bouger da nga xool xam ne comme comme machine comme comme comme comme robot mënul mel ne comme Maty Trois Pommes mu nekk di wax ak yéen ni en live mënul nekk c'est pas possible deepfake bopp bi ak yaram bi du di deepfake même bu fekkee ne koo xam ne xamoo audiovisuel xamoo multimédia xamuloo télévision ni rien du tout deepfake bu ñu ko expliquer yow booy xool rek xam ni vrai euh, euh, euh, conférence de presse Ousmane Sonko bu ñu ko tegee teg également deepfake bi nga xam ne lii image yi deepfake la mënul nekk donc ils ont commencé à vous préparer naan waa même même tey bu vidéo amee tey même moo laa gën bu génnee vidéo vidéo bu ñu monté la parce que depuis deux ans gars yi génnewuñ dara gars yi amuñu dara kon depuis deux ans bu ñu amoon dara ni ko génne nañ ko bu yàgg loolu stratégie Ousmane Sonko la Ousmane Sonko da doon prêcher le faux pour savoir pour que yëngal ñu comme sama genre gi yëngal ñu pour que ñu mën a génne ñu lu ñu am moom mu mën a nag manipuler comme d'habitude wala bu yëgee ne dara dina génn mu mu gàttandu ko loolu Ousmane Sonko stratégème la prêcher le faux pour savoir bu ñu xataal ñu pour que ñun lu ñu yor ñu gaaw ko génnee balaa procès bi di ñoom ñoom dinañ mën a wëlbati situation bi ñu bañ man mi fii laa doon xataraayu on a les mains liées bàyyi la ñu bàyyi la ñu xeex ak ñoom lu ñu yor ñu mën koo tëmbal non. affaire bi course de fond la ndekete loolu Ousmane Sonko xaatam la mu jaarale ko ci ñoom El Malick ñoom El tas ko ci seen ci ci la racaille de Facebook on n'est pas tombé dans ce piège là depuis démb nag pour ñu xuloog seen procureur pour ñu pour ñu reyanteeg euh, euh, moo Morgun ñu ngi commencé di génne di naan kenn ki Bet Kibson am na ko génn def live naan waaw man am na nu muy demee sax man maa leen gën a dee dama leen di fenal dama leen di sosal ni leen waa video yi deep fake la vidéo yi montage la yaa ngi wax sa stratégie te loolu moom mooy seen stratégie actuellement mooy lu mënti génn rek jàpp leen ne montage la ndax depuis deux ans bu ñu amoon dara génnee nañ ko vous êtes sept cent et quelques mille yéen waa Pastef yu nekk ay militants Pastef deux mille dix-neuf quinze pour cent ngeen am supposons sax que ni xale màgg na insant bi nii vous ne pouvez pas être plus de un million de militants ñu am seeni carte Pastef on est 17 millions de sénégalais on est 17 millions de sénégalais am na sénégalais yoo xamante ne nii élection ba élection la ñuy gën a dem voté ji bokkuñu APR amuñu carte Pastef bokkuñu fenn te dañuy seetaan di seetaan ñëpp bu élection génne ñu jël ndànk seen carte dem voté ku leen neex bu vidéo waree génn dinañu test vidéo yi. ku nekk di nga yor vidéo yi boo yoree vidéo yi di ko xool du benn du benn Ousmane Sonko wala ay ñoñam ñoo lay indiqué naan la lii montage la jaaral fi xoolal lii seen démocratie lañ nekk te sénégalais kenn du dool dox seen maayin ma waxaat ko bu ñu tasee vidéo yi sénégalais yi yor vidéo yi ku nekk yor ko door ko xool yaay apprécier sa bopp te vidéo yi ñu yor bés bu génnee lii tey leen li ma leen di wax vidéo yi ñu yor bés bu génnee ba ku nekk yor vidéo yi non bu ngeen ne lii deep fake la gars yi dina leen fekk fa ngeen nekk talaata leen ñaar yoon parce que Ousmane Sonko il vous a pas tout dit Ousou Bébé il vous a pas tout dit xamu leen vidéo yi ci ban contexte la xamu leen lan moo nekk ci vidéo yi exactement ngeen commencé sos naan montage la. am na ñeneen ñu ñëw naan vi privée la ba ngeen doon wuddoon yenn yenn yenn autorité yi du seen vi privée te même supposons ngeen ne vie privée la Ousmane Sonko dafa bëgg nekk président de la République nee nañ gérewul dara waa mais dafa bëgg nekk président de la République mu am nag loo xamante ne ni moom loolu la war a mel parce que du ku nekk mën a nekk président de la République waxoon naa leen ko semaine passée. dafa war a am ay jikko yu war a nekk ci moom. yéen est-ce que xam ngeen lu nekk ci video yi balaa ngeen na lancer sa vie privée man duma pardonner benn Ousmane Sonko ñu gis ko ak xale bu jigéen muy sëy ak moom ci anam boo xamante ne ni moom jullit la woote jullit góoru julit waru ko sëyee ak jigéenu jullit loolu du privé moom moo wax ni julit ak kan la Ousmane Sonko ba nga nekk université danga daan cëkkal di wone ne yow jullit ak kan nga seen biir chambre ya fa ngeen daan nekk yow ak sey moroom di dóor seeni gel respecté wuloo jigéen yow maa ko wax ma Oumaty ma bamtuwaat ko Ousmane Sonko yow yaa woote julite yaa woote musulman ak am yenn activiste ñoo di la seet si ngeen di ànd di leen nga leen di jiite jullit julli yow yaa woote sell mi yow la ñu wooye mu sell mi kon loolu dafa war a bokk ci say valeur bëgg nga jiite Sénégal du rek ay gestion ak bonne gouvernance mais jikko ci la bokk bés boo woote ne yow jude yaa woote jullit nga am sa ñaari jabar ñuy muuru nga ne leen foog ñu muuru ñuy muuru ngay dem ngay dem ngay dem ngay dem ngay dem élection ñu lay wane ngay ngay sa convoi di di julli di wane ne yow jullit ak xat nga ah kon ndekete da ngay njaaloo pourquoi tey ñu naan vie privée la du avant da ngeen doon wax 2021 lu demu fa xamu fa métal la la doon wax Ousmane Sonko xamul xamul Adji Sarr tey fan ngeen wàcc vie privée la ah moom du imam ah ñun président lañ soxla soxlawuñ imam vous êtes tombé bien bas ma ñëwaat ci yaa woote julite kenn saxalu la lem yow la ñu wooye mu sell mi kenn saxalu la lem en tant que julit bés buñ la gisee ngay sëye ci yenn anam yi ak yenn jigéen yi yow jàppal ne yow hypocrite nga yow ndax li ngay woote doonoo ko foofu biir privé amu fa man soxla ma président boo xamante ne dafa am ay ay jigéen dafa leen esclave sexuel wax nag li may wax ni dafa am lu tax ma wax ko waa Pastef ma ni ne ngeen bu bu vidéo amee sa vie privée la déedéet man duma bëgguma comme président koo xamante ne day jël ay jigéen leen def esclave sexuel ba vidéo yi génn ba vidéo yi génn man soxlawu ma comme président un Ousmane Sonko wala un Oussou Bébé boo xamante ne c'est un détraqué sexuel te li may wax xam naa ko Ousmane Sonko yow suturaaloo jigéen respecté wuloo jigéen t'es un malade tu dois aller te soigner. ba vidéo yi génn bu fi kenn wax di fake ndax ñoom pare nañu da defe defee ne li ngeen doon def demi 2021 ba tey loolu moom mooy am dinañ leen plante ku fi génnee vidéo wala photo ñu plante la mais nañuy wax ak ay xale. vidéo yi bu génnee ku ne ku ci bëgg di nga ci jot te kenn du plante kenn kenn du dugal kenn te les gens ont le droit de savoir kon deepfake bu du jàll seen stratégie ba ngeen amoon ba léegi. mënatul jàll parce que entre temps on vous a observé on sait qui vous êtes ak nu ngeen di fonctionner kon di fake bi buñ ci tolloo dina am yeneen argument yu ñuy teg te du jàll deuxièmement argument wu vie privée du jàll ndax xamu leen lu ne ci vidéo yi xamu leen contexte vidéo yi sextape yi may wax xamu leen ndax aji Sarr la wala ñeneen xamu leen nekk leen di wax rek